waaw ñuy nuyu acteurs de l'éducation yëpp rawatina xale yi nga xam ne ñu ngi doon def CFE ak entrée sixième di leen wax nag bonne chance mhm. waaye tamit ñi nga xam ne nag dañoo nongo yi tàmbali bac technique mhm. xam nga bac technique nag dafa nekk nag bac boo xam ne dafa am enjeu mhm. enjeu boo xam ne parce que opportunité d'emploi te fu mu toll nii boo leen xaymawee toll nañ ci trois mille deux cent cinquante deux candidats du ñu bëri noonu te trois deux cent cinquante deux candidats yooyu ñu ngi ci seize donc cinq euh, cinq jurys à Dakar ak onze centres d'examen soo xoolee nag ci bac boobu nag am na lu ñuy wax euh, bac sciences technique économique et de gestion mm-hmm. te moo nekkoon euh, bac G à l'époque mm-hmm. léegi nag moom lañ changé am na aussi bac sciences et technologies industrielles mm-hmm. euh, boobu plus de voilà mooy STI 2D donc soo xoolee bac boobu dafa nekk euh, bac. ay euh, développé nii. waaw. bac bi dafa nekk euh, bac technique boobu. dafa am opportunité d' emploi. cest à yow déjà boo ko amee rek mun nga dem liggéey su fekkee ni bac G mën nga liggéey si si banque. Mhm. soo nekkee tamit beneen bi équivalent à l' dañ doon wax. Mhm. série F1. Mhm. F ay série S3 par exemple yooyu dafa am loo xam ne tey mën nga génne rek dem ci. industrie di liggéey. Mhm. donc bac boo xam ne la dafa am vraiment solo. moo tax au passage. Euh, mhm. euh, may wax euh, bonne chance candidat yi. Mhm. yàlla na yàlla def jàmm ñu mën ñu bëri génn si parce que bac boo xam ne la dañu kii d'accord que nguur gi teg na maanaam style formation mais. formation professionnelle bi ci boppam. tey dañu war a. lu ñuy wax repenser système éducatif bi. ci système de formation bi. parce que formation bi. Mhm. waruñu ko ci limiter simplement pour euh, lenn nga pare bac rek. Mhm. dem def formation professionnelle. dañu waroon repenser mooy dès le les classes au niveau du du du moyen. Mhm. ñu ko commencé def formation. pour que ëllëg su fekk ni sa sa étude demul fu sori. nga mën a maanaam directement reconvertir dans le marché de l' emploi. alors que état bi fu mu toll nii moom day xaar. ba nga def échec scolaire. pour ñu bëgg la encore former. je crois que c'est une perte de temps. Mm. on doit repenser le système éducatif parce que on on charge les enfants dañ lay charger charger ba nga fees. Mm-hmm. nga dem enseignement général boo échecqué rek pare nga ci. Mm-hmm. tu n'as pas de métier nga mujjee taxawaal bi ne jàng nañ am nañ diplôme am ñu liggéey. alors que c'est le système qui n'est pas bon. d'accord voilà. c'est pas, c'est pas ah. bon et puis loolu noonu je pense que problème Euh, ndaw yi dañ leen war a teel accompagner bu ko defee ñu dem ak bagage boobu màgg ak ñoom après tegal leen xëy na jumtukaay yi nga xamante ne dina leen permettre ñu am liggéey ci ni mu gën a muccee ay mais c'est pas important aussi nga jàngal nit ba mu pare am bac soog a euh, xalaat ban branche la war a suivre après yooyu aussi day am beneen répercussion bu nga xamante ne dina ko am ci. c'est la force nag des pays asiatiques. Mm. ñoom noonu lañ loolu lañ loolu lañ lay dañ lay cumuler. Mm-hmm. am nga xam ne boo demee ba nga xam ne benn sat mënoo continuer théorie am nga pratique di nga mën a opérationnel dans le marché mhm. mais malheureusement ici y a trop de théorie waaw théorie boobu nag ngay continuer continuer ba ñu ba nga fin bi mhm. nga door a euh, commencer pratique mhm. alors que booy def alternance théorie ak pratique tu plus opérationnel donc c'est l'avantage surtout de ce bac technique que j'ai parce que tu cumules la théorie et la pratique waaw te maalaw yéen man benn question laa am mm. yéen assemblée chaque année ci mbirum jàng bi surtout ngeen ñëw invité ministre mu ñëw wax développé bu ñu paree waate même problème yi mooy am bu dee jàng bi gis nañ ne fan yii am na peut-être euh, mais am na yenn syndicat yu nekk li ñu signé li ñuy ñaan mooy ñu appliquer beneen affaire si mbirum technique bi jumtuwaay yi daa xaw a manqué bu baax lu tax ñuy créer man pour man dafay am existant par exemple école yoo xam ne lycée yoo xam ne am na ba pare lycée yooyu dee mm-hmm. ñu war leen defaraat wala ñu war leen yokka yokk ñu dem créer waat yeneen lycée yoo xam ne déjà lycée yooyu du am jumtuwaay mm-hmm. est-ce que donc du ñu yokk problème li ñuy wax euh, euh, xar xawma si karaw gi waaw waaw est-ce que du loolu te alal ko yow fii nga yor yaa ngi am ay problème au lieu nga defar li nga xam ne yàqu na ba pare nga créé waat leneen lu bees. Mm-hmm. loolu nga may laaj. Mm-hmm. waaw. waaw assemblée de ñoom liñ ci war a def yëpp def nañ ko ñu ne assemblée xam nga lu ñu war a def. Mm-hmm. waaw big si bu ñëw ñu wote ko mu jëm ci réew mi mu jaar ca ministre ba kon ñun loolu moo mooy li nga xam ne mooy ci suñu warugal. ñaareel bi nga ci wax nag <coughs> da ngay defaraat fii sos fële defe naa ne loolu ndam la ndax dem nga ba mën a defaraat bu bees defaroon bu màggat nga ne dangeen di defaraat bu màggat bi soog a sos loolu ci lañ nekk man di conseil départemental bi ma yore li ma ci def bëri na tey tamit ñuy wax yépp école yi ñu dañ koy defaraat duñ ko bàyyi mu daanu ndax tey sooxe bi nekkul ci fiñ ñu war a jànge ca nañu war a jàngee mooy sooxe bi parce que élève su fekkee jàngoo munoo am xam-xam même booy jàng ci mbaar na nga jàng man jànguma tubaab mais tey ki nga xam ne dafa amoon certificat bu yàgg li mu xam tey ki am ba xamu ko ñu ci bëri koo ci jox leetar nu koo jàng koo ci binduloo leetar mënu koo bind parce que lan moo ko def mooy ñàkk jàng bi du ca sutee mm-hmm. ah même boo doon toog ci suuf di jàng sax jàng dafa am solo mais ñi nga xam ne dañoo war a jàngale ak heure yi ñu war a jàngee ak xale yi heure bi ñu war a jàng ak ni ñu leen war a jàngalee moo manqué waaye njàng mi yàqoowul ci mbaar mu ñu war a jàngee wala étage bu ñu war a jàngee. mais condition yi bu ko tegul du ñu mën a jàng. ban condition. parce que boo ñëwee tey. ku ci ni jàngalekat bi. waaw bu ñu bu ñëwee. amul xel bu daal. jàngalekat bi lan moo ko xam xel mu daal. boo ñëwee. yow boo boo boo leeree ne yow da nga war a ñëw. war a yore ñu war la fay bu baax. fay ñu la par exemple. kan moo la ko wax. ah liñ leen war a fay leen leen di fay de fayuñ ko waa Gambie ah. fayuñ ko feneen fii li ñuy fayee ko solde li ñuy fayee ko li léegi am na fay ay am na peut-être début de solution fii ñu defal leen ko mais am na peut-être début de solution mais gis nañ ne ni euh, ñuy wax euh, euh, fan yi enseignant décisionnaire yi ñoom ñu ngi jooy ñoom ah ñoom ñu ngi jooy ñoom ñu ngi ne ñoom enseignant décisionnaire nee nañ bu leen fàtte def nañ nguur gi signé na accord set mais ñoom seen cas dañ ko war a seetaat. waaw waaye seen député yi xale yi yéen ñi war a def contrôle action parlementaire. ñu ngi koy def ah déet. ñu ngi koy man de man leen la fa ma fa ma ne fa ma fa ma nekk Pikine. waaw musuma gis député yi di def visit ci école yi. est-ce que loolu loolu du yoonu député de. loolu du yoonu député de. mais ici déedéet déedéet bu nekkee yoonu député la sa yoon. wa waaw déglu ma ne député la leen war ñu koy def ensemble. yow yow yaa ne da ngay représenté. déedéet dama ne li ko war moom ca école ba. moo ñu ca war dox yow. la ko war moom ca école ba. moo ci war mais yow nga di dem ci bu ne war ngaa di dem ci kii ah? yaa war a dox soxla askan bi mais ñu ngi yóbbu ko yóbbu ko assemblée nationale wote ñoom lañu wote gis naa lii ak lii waaye mais boo yow boo nekkee ndaw penc bi ca gox ba mm. xamoo lu école bi di kii fañuy paase projeté nañ fi benn projeté nañ fi benn école CMC ko taan président conseil départemental sooxe bi ci état bi la tey man député laa fii laay waxee ci seen rajo bi mënumaa jot ministre bi téléphone. déet waay déedéet. mënoo jot moom la talaa téléphone mënuma ko jot téléphone. ah loolu c'est grave soo ko oyu. Ah, te man ah, dama dem di rang ci seen bureau. monsieur le ministre moom lu talaa yaa ngi dégg ah. koy dégg nee nañ sax yow pour jot la koy dégg mosuma ko woo téléphone. mu woo ah, loolu daal am. kon yow yow yow fa Serigne yow Serigne Mbaye Thiam même problème ngeen amoon. ban problème. ah newoon nga fi daal. affaire bi Serigne Serigne dëkk. waaw la ko war ci mu nekk ministre. waaw def ko fa. waaw ko man. gisoo ñoo bokk lépp sama mbokk la ñooy ànd ci lépp mais jàmm rek jaar sama diggante ak moom man jàmm jaar sama diggante ak moom. parce que man mu jaaree si jaay waaye li nga xam ne mooy dëgg. Mhm. tey defar dama koy wax. Mhm. ministre yi man de député te député yaa ngi koy wax. kenn koo ci mën a jot amul. Mhm. parce que boo leen wooyee duñ la woyu téléphone boo leen gisee assemblée nga leen di gisee. dégg loolu man maa maa ko. président de la république aussi. waaw kay interpellé député yi nee nañ par la voix de Malaw Sow ministre ay ministre inaccessible. te inaccessible. Malaw beneen bi mooy. député yooyu yéen leen gën a légitime xaw ma euh, ministre yi ministre yooyu dañ leen a fal te yéen dañ leen dañ leen dañ leen a mm-hmm. te yéen ñi askan bee leen fal teg mm. ko xamee ñun ñi nga xam ne ay député ki leen ñoo waaye buñ ko xamul ñun mais ki ñu nommé mais ku ñu nommé ki nommé nga xam ne um askan bi di jàmm moom ngeen ma laaj ma leen moom taala laa leen wax mënuma koo jot téléphone bu ma ko woyee du ma uyu du dem di ko mais administration écrite la est-ce que jéem nga bind jaarale ko ñëw jaaraluñ ma ko. ah déedéet man ma nekk député ma yore suma carte député. waaw ñu xam ma ma xam leen. waaw mënuma leen a jot ma. dem yow askan bi leen tax a askan bi maa ngi def li war suma digganteeg ñoom. ah maa ngi def li war suma digganteeg ñoom bokk tam nga def sa kéemtalaay kàttan. déedéet du ma def suma kéemtalaay kàttan parce que suma kéemtalaayu poste laay doon su ma sonnee ci pour ñu def suma talaayu poste laay doon du talaayu kàttan. maanaam suma bopp may tax may moyaalu yooyu. Mm, te duma ko def. d'accord amoon na solo teewoo. waaw waxtu wee ñu xaw a kii rek. kay def waxtu bee ñu waaw mais macha allah donc euh, donc lenn lu may wax rek mooy encore. fi ma fi may du ministre boobu rek de. ah ministre yëpp dañoo inaccès. ah loolu doy waar maa ñoom ñooy tase assemblée. interpellé njiitu réew mi. Euh, déedéet du ma ko interpellé. Mm. parce que moom li mu war a def def na ko. moom daal gongo. moom fal na leen du gongo de. parce que tamit bu leen moom du xam ku ci tase boo waxee mu weddi waaye moom moom moo ko waroon a réglé moom borom réew mi moo ko waroon a réglé borom réew mee ko waroon a réglé waaye borom réew mi du ko réglé d'accord euh, comme léegi nag def nañ euh, li ñu war a def nag mooy toujours fa ma fay tàggoo toujours li may wax ci affaire bi mooy restauration école publique mhm. nañ ko joxaat gëddëm yéen ministres yi école publique moo tax ngeen doon li ngeen doon mhm. joxaat lañ ko gëddëm naam nag rek la ngeen problème jàngalekat yi il faut aller au delà mhm. au delà de mooy lan Euh, euh, ministre de l'éducation am na yeneen affaire yoo xam ne ñu ngi koy xaar question infrastructure yi mm. ngir yàlla dimbali leen ñu si gis ngeen li xew foofu seebi ko taan école boobu nga xam ne ne CM boo xam ne bañ ko tabaxee matul deux ans mm-hmm. li yàlla xam doy na muy waaja daanu ci kaw xale yi je crois que yooyu dañ ko wari mm-hmm. question abri provisoire yi am na luñ ci programme mm-hmm. mais nañ accéléré parce que 2018 président si discours am la nation la ko agité woon waaye nag boobu ba léegi des na ñu ngi xaar ay solution parce que fu mu toll mm. nii dañ bëgg que dañ ne mm. une éducation de qualité mm-hmm. ne peut être sans des des des, des infrastructures de qualité. macha allah waaw loolu loolu dëgg la am na solo bu baax a baax waaye. mënoo ko jot ministre de l' agriculture. mënuma ni mënoo jot kenn de. waaw. ci jamono yi parce que loolu kay yàgg nañu wax du ma ko jot téléphone ñu jëlee actualité. waaw ah, a